rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil anbiyaai wal mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmain wa radiyallahu taala an saxaabati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu xàq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di leen déwaniku te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii di weeru koor di sangu weer yi di weeru alquran di ñaan yàlla jotaay bi ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim yàlla yàlla may ñu ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp yàlla nangul ñu ko ci mbaaxam ak tedd ngam lépp lu ci tàbbi ci rëcc rëcc yàlla nañu ko jéggal ci mbaaxam ah fa tabaarakallahu ni nga xamante ni imaam wax na ko noonu rekk la duma cay jaaraat xanaa di nuyu itam ak di ziyaara Serigne Cheikh Sall nga xamante ni moo nekk ci kër gi ah, fa tabaarakallahu E, di ko sant moom imaam ci taxawaayam itam fa tabaarakallaahu ci jàkka ji ñi nga xamante ni ñoom lañ daan bokkandool di toogandool fii ci jàkka ji ñi ci dawlu ba ñu ci mujj ko mel ne sëriñ Ibrahima si yàlla yàlla yeesal ay yërmandeem ci ñoom ñi nga xamante ne ñu daan wéttali fa tabaarakallaahu seen teewaay di teewaay yoo xamante ni teewaay yu kawe la ku mel ni alxaaji Alioune Guèye ak mbooleem koo xamante ni yaa ngi yëg ak tawat ci sa yaram rek yal na yàlla yë yëkkati la roof la ak wér shifa an la yugaadiru alaman wala saqama su defee nag ñoo ngi ci téere yàlla bi daaw yàlla mayoon nañu ñu jàng benn rubon bi mooy ñoo ngi tàmbali woon fatiha baqara ba agsi jeexetalu suuratul an'am ren ñu fas yéene inchaa allahu taala tàmbali ak yéen ci suuratul aaraaf ba jeexalu suratul kahfi suñu yàlla mayee loolu lañu bëgg loolu lañu natt yàlla yàlla àggaleel ñu natt boobu ko defee nag ci sunu néew xam-xam ndax alquran waxu yàlla la am péréem daanaka néew na doomu aadama bu ko yàlla di jekkuloo su ko defee ñun nag dañoo tiim téere bi rek di ko jële ci arab moom mi nga xamante ne mooy firi ñu indi ko ci làmmiñu arab olof kon lépp loo xamante ne jaar na yoon yàlla yàlla nangul ñu ko waaye loo xamante ni itam jaarul yoon yan yàlla jégal ñu ko bismillahi rahmani rahim ñoo ngi tàmbali jotaay bi ak tafsir bi di dimbandikoo tur yàlla tur yàlla moom lañuy ñuy yàlla mi nga xamante ne ar rahmaan mooy aji xéewal ji bépp mbindeef ci àddina mooy borom yërmande ak xéewal yu yaatu yi nga xam ne làmb na ku ko gëm ak ku ko gëmul arrahimi kay aji yërëm ku ko soob ëllëg ci àllaaxira mooy boroom yërmande gu jagoo gi wa kaana bil muminina rahima alif laam miim sood saar bi saaru màkka la fa tabarakallahu saaru màkk mooy bépp alquran boo xamante ni wàcc na la jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa di gàddaay loole lañu tuddee alquranu màkka bu fekkee ni gannaaw bi mu gàddaayee la wàcc ñu tuddee ko alquranu medin donte sax ci màkka la wàcc wala ci feneen la wàcc dañ koy tuddee alquranu médine alif lam dañoo am ñett dafa am lu tuddee al asma ay tur ak al musammayaat ak loo xamante ne moom lañu tuddee ar rasm tur bi ak boroom tur bi ak li ñuy bind tey jii nag ñoo ngi ci asma yi alif laam miim sood boroom xam-xam yi wax nañ ci lu ne waaye lañ cay wax lu mu doon boo ko toppee rek daanaka day yaatu yaatu boo xamante ne deesul neex desul deesul neex a peeg ba tax na dañuy mën a doyloo rek li mu fassir bi wax allahu aalamu bi muraadihi bi zalik mooy yàlla daal moo xam li mu namm ci alif ak laam ak miim ak soad ndax léeg-léegi mu ñëw nekk ñeenti xaraf comme nii mu ñëwee mook alif laam miim ra léeg-léegi mu ñëw nekk benn xaraf comme nuun wal qalam ak qaaf léeg-léegi mu ñëw nekk ñaari xaraf comme yaasiin wal quraanil hakiim ak taahe maa anzalna alayka al quraana li tashqee léeg-léegi mu ñëw nekk ñetti xaraf comme alif laam miim zalikal kitaab taasim miim léegi-léegi mu ñëw nekk ñeent comme bi mu léegi-léegi mu ñëw nekk juróom kaaf haa yaa ayn saad miim ayn siin qaaf waaye loolu lépp dañuy wax rekk yàlla moo xam la mu canam soo ko jëlee ñoom ñépp nga boole leen boo ci jël doo ko jëlaat doo jëlaat aw xeetam daf lay jox fukki xaraf ak ñeent di genn wàllu xaraf yi nga xamante ni mooy alxuruf alhijaiya su ko defee nag fukk ak ñeent yooyu yi muy génnee am na ñu ci tëgg ne dafay jëmmal ismullahi al azam su ko defee nag yàlla daal a xam kitaabun lii ab téere la anzelnaahu boo xamee unzila wàcceef na ko ilayka jëmee ko ci yow sayiduna muhammad mu bàyyi ko ci sa boroom amul lu ko gën a rëy ku toll ne subhaanahu wa ak kàddoom mu làmb ay cantaaneem ak i tereem mu wàccee ko ci yow sayiduna muhammad loole nag fu mu ñëw nga war ko jottali xeet wi kon nag xaaral natt bu ne xaaral mettit bu ne xaaral tontu bu ne moo tax ba tax na falaa yakun rikk bu mu nekk fii sadrika ci sa dënn ci sa xol xarajun tiis minhu bu tukkee ci moom ndax daañu la weddi wax la ni saaxiir nga jabarkat nga daañu la wax kazaab nga waxkat lu dul dëgg nga daañu la wax eh, fa tabaarakallaahu kaahin nga lu ne daañ la ko yekk waaye loolu lépp fa laallaka baaxiwoon nafsaka ala aathaarihim ndax léegi-léegi itam nga sonn ci nit waaye itam du la gëm waaye loolu lépp bu mu tax tiis nekk ci sa xol mu ni wàcce na ko nag li tunzira ngir nanga waare bihi ci alquran mu nekk al inzaar wa zikra ak ak fàttali itam lil muminina ñel way gëm ni ñaar yooyu lay dox muy at tabshir wal inzaar ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu wala nekkuñu ci yàlla bëgg alquran dafay nekk li leen di xupp di leen xabaar la nga xamante ne mooy mbugalu mujjantelu lii ñu nekk xupp leen ci ndax ñu dellu gannaaw waaye ñu nekk ci li nga xamante ni itam loolee la yàlla bëgg ña ko gëm mu nekk ak bégal ne leen yool bi nekk ci gannaaw euh, ngëm gi lii la ñaar yooyu rekk la mooy indi la xabaar bu lay ragalloo nga jóge ci li nga nekk walla xabaar bu lay bégloo nga continuer ci li nga nekk sawar ci suñ boroom nag loolu mooy wax bi mu jëmale ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit ñi nag mu wax leen ñépp ne leen ittabi'u topp leen maa la nga xamante ne unzila wàcceef na ko ilaykum jëme ko ci seen boroom min rabbikum unzila wàcceef na ko ilaykum jëme ko ci yéen min rabbikum tukkee ci seen boroom te muy alquran alquran wàccee nañu ko ci ñun ñépp ndax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko wàccee yonent bi jottali ñu ko kon ci ñun ñépp la alquran wàcc léegi nag bu yàlla ne topp leen li ñu wàccee ci yéen alquran dafa am yu muy làmb yuy jëmmal topp ga bu njëkk bi moo di topp leen ko ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum mooy jàng leen ko ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum yéen jullit ñi téere boobu ñu wàccee ci yéen fexe leen ba xam ko su ngeen ko xamee itam ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum góorlu leen ba jëfe ko ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum bu ngeen ko jëfee fexe leen ba jikko woo ko di ko doxale ak seen diggantey moroomi jullit ak sax doomu aadama loolu mooy ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum mooy jàng ko fexeel xam ko nga jëfe ko jikkowoo ko soo ko jikkowoo moom ngay jëflante ak ñépp waaye lool kese doyul de am na bu des mooy ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum mooy campagne leen ñeneen ñi xamal leen ko ngeen woote jëme ci sun borom nee na man mi leen bind xam li yëwan ci yéen jox naa leen ko mi ngi ci seen loxo nee naa leen topp leen ko ci anam ji ma leen wax kon leneen lu ngeen topp lu dul moom rek ci alkande la leen jëme moo tax mu ne wala tattabiu bu leen di wutati bu leen di topp awliyaa ngeen di ay awliyaa ay way méngoo méngoo min yi bàyyi fi yàlla ci lim leen di sant ñoo xamante ne dangeen topp seeni ndigal ak di bàyyi la nga xamante ne ñoom moom lañ leen di tere te loolu lépp dafay nekk fii maasiyatihi taala suñ borom ne xalilan néew na trop xalilan néew na maa trop te zakkaru na bu ngeen nangoo waaru bu ngeen nangoo dégg waar ah ji dafay nekk tawkiit rek ah li taakidil illa moo tax da ngay wax ne xalilan néew na maa trop bu ngeen nangoo dégg yi kon laaya ñaar laaya laaya yooyu mi ngi noonu yenn yi mu jumale ci yonent bi sallallahu alayhi wa yeneen yi mu jubale ko ci jullit ñépp sun borom di wax ni ñi nga xamante ni ñoo nanguwula topp ndigal yooyu nañu bàyyi xel ne am na lu leen di xaar li leen di xaar mooy lan moo di yonent ya ma yónni woon ña leen weddi woon ña ma jëflanteeg ñoom loolu dong mooy xaar ñii di weddi yonent bi sallallahu alayhi wa te suñ borom ne wa baraana kam xabar yel di istifhamiya wa kam baraana nga xam ne nag day nekk barabu mafool la ko nasab nag ahlak naahaa jooju moo ñu koy firil istigaal bee tax wa kam baraana torop ba ma ne sukaa takk min cib dëkk boo xamante ni moom yàlla ahlak naaha namm nañu ak alkandeem suñ na fa jaa aha dikkalat ko baasunaa sunu mbugal ñun yàlla bayaatan jamonoy guddi yendoo nañu def lu leen neex guddi jot ñu dem tëdd di nelaw ànd ak seen dal xel xamuñu luy xew mbir ma dikkal leen guddi aw hum wala boog mbir moom ñoom qaa'iluuna ñuy way féexlu ci bëccëg bi kon hum jooju dafay mel ne dangay ngay taqdir waaw ndax jumlay xaal la aw hum wala boog mbir moom ñoom qaa'iluuna ñuy way féexlu ci bëccëg bi dañoo am lu ñu tuddee alqayluula alqayluula mooy nelawi digg bëccëg ki añ ba pare di sieste loolu lañ tuddee alqayluula ndax jàpp na ni moom dara xewul lekk na ba suur ma ngay tëdd mooy daf lay bëgg wax ne mbugal mi buy dikk ci jamonoy mbetteel lay dikkee dalay fekk yow doo ci sax bàyyi xel bu dee guddee yaa ngay nelaw bu dee bëccëga yow añ nga ba suur di féexlu fa la yàlla nee na foofee na nga jàppee ne dara du xew fa lay xewalee la may xewal alxayluula mooy nelawi digg bëccëg naka ñu tuddee la ak alxayluula ak alxayluula alxaylu la mooy nelaw gannaaw fajar dañoo wax ni dafay dox sa diggante wërsëg moo tax ñu tuddee ko alxaylu la alaylu la mooy nelaw gannaaw tàkkusaan daf lay day tax day causé ay feebar ci yow day ndax euh, euh, euh, da nelaw yooyu yuurisu alayl la ñu ne alaylu la mooy dafay indi feebar ñu tuddee ko alaylu mooy nelaw yi baax mooy nelaw dallu digg bëccëg moo tax suñu boroom ne aw hum wala ñoom xaa iloo na ñuy way dallu digg bëccëg te bu alkande gi ñëwee famaakaana du nekk daawaahum seen laytu <clears throat> seen lay ba ñuy wax is ba nga xamante ne jaahum dikkal na leen baasunaa sun mbugal ma illaa an lu dul ñu naan eey inna wér naka ñu ñun de kun naa nekkoon nañu zalimin di way tooñ waaye day fekk booba reconnaître say tooñ yaa ngi tuub day jàll ndax jamono boobu jamonoy fay jëf mooy bëgg ñëw duutu jamono togg jëf sun borom nee na loolu mooy xew ci ñi nga xamante ni ñooy di yonent yi nanguwu jaar lañu leen andil mu bàyyi ko fa yàlla ci ay santaaneem nangu ñoo bàyyi itam la nga xamante ne moom la leen yonent yi indil ci ay tereem sun boroom nee na loolu rekk mooy am mooy dem ba rëccu foo xamante ne rëccu duutu jariñ nga naan inna kunna zalimin fala nas nasalanna sun boroom nee na giñ naa ni dinaa laaj allazina ña nga xamante ni ursila yónneef na ilayhim jëm ci ñoom muy xeet yi sun borom nee na yomal qiyaam dinaa taxawal xeet yépp laaj leen te wala nas alan na gis giñ naa ne dinaa laaj man yàlla al mursaliina ñu ñu yónni ña ñoom it dinaa leen laaj mbokk yi fii waxul ana lan lay leen di laaj dana laaj xeet yi waaye itam dina laaj yonent yim yónni woon ca xeet ya yowma yajmau llahu rusul fa yaqulu maza ujibtum yàlla mi ngi wax ne fàttalikul bis bàyyi leen xel bis ba nga xamante ne yàlla dina dajale yonent yépp ne leen ana lan la leen lañ leen leen tontu ndax li ngeen santaane woon ñoom tontu nañ leen ci jëfandiku wala boog tontu nañ leen ci gàntu yonent yi daañu tontu wa yawma yunaadihim fa yaqulu maaza ajabtumul mursalin xeet yi itam yàlla nee na dinaa leen wax yawmal qiyaam ne leen yéen yonent yi ma yónni woon ci yéen ndax jottali nañu leen ngeen ni waaw ndax jëfandikoo ngeen ko waaw wala déet sun borom nee na ñëpp lay laaj dinaa dajale yonent yi laaj leen ndax jottali ngeen ak luñ leen tontu waaye dinaa dajale xeet yi itam laaj leen ndax jottali nañu leen ak lan ngeen tontu maza ajabtum yéen mursalina maza ujibtum sun borom nee na loolee may laaj nekkul laaj ngir xam dafa am lu ñu tuddee su'aalu istifham ak su'aalu iqraar nit ki nga xam li mu def nga laaj ko pour moom mu wax ci làmmiñam li mu def laaj boobu da ko ko wax danga ko laaj pour moom mu reconnaître mais laajoo ko pour xam kon laajug sunu boroom nekkul laajug sàkku xam mais day nekk laaju iqraar ndax dañoo wax ne al iqraaru mooy sayidul adilla tegtal yépp preuve yépp bi ci gën a wóor mooy bi bàyyi ko ci làmmiñu ki def dégg ngeen wax dem déet kon laaj boobu yu laaj loolu laaj laaju laaj boobu la su moo tax suñu boroom ni fala fa la naqussanna alayhim bi ilmin ñoom yonent yi ñi ma yónni woon ak xeet yi nga xamante ni yónni woon naa ci ñoom ay yonent suñ borom nee na dinaa leen nettali lépp yonent yi lañu def ak xeet ya lañu tontu yonent ya fala la naqussan na géñ naa ni daañu njàngatal nettalil alayhim ci ñoom bi ilmin ci xam mooy ci xam-xam bu wóor ñoom lañu def analaan la ndax suñ boroom nee na amul benn jëf bu am jëf boobu fàddu ma wa maa kunna nekkuñu woon gaa'ibiina di way fàddu ba yonent yi di jottali ak yaxeet ya la nga xamante ni moom lañu ñu tontu yonent ya suñ borom nee na wa maa kunna gaa'ibiin fàdduwuñu barab ya fàdduwuñu jamono ja jamono ja fàdduwuñu itam jëf ya ñett yooyu amul benn bu ñu ci fàddu su ko defee nag yowmal qiyaam mu ni wal wasnu balaas nattukaay peese ñeel jëf ya yowma isin keroog di bis bañ leen di laaj di yowmal qiyaam alxaqu mooy lu màndu la su ko defee mu mufassir bi loolu la wax bu boobaa nag bu boobaa yow ma izin ji mooy nekk xabar bi day nekk al waznu day nekk mubtadaa ma alxaqu nekk euh, sifa ci waznu al waznu alxaqu bu boobaa yow ma izin bu boobaa mooy nekk xabar ja waa xabaru bi zarfi naw bi xarfi jar nawi na maana kainina wistaqar waaye itam yow ma izin bi mën a nekk zaraf alxaqu nekk xabar alwasnu peesakaay jëf ya balaas ya yowma isin bi xew keroog di yowmal qiyaam loolee mooy alxaqu mooy peese bu maandu ba mu nekk xabar ba tey mën na nekk kon nag bis boobu lu waaye jëfoon daañu ko peese waaye nag nattukaay yi du bokk ndax bu dee ci àdduna lu diis rek yaay féete suuf waaye fale mbir yi dafay wuute jëf ju baax ak jëf ju bon ah lu baax day diis lu bon day oyof tax na suñ borom ne fa man képp koo xamante ne saqulat diis na mawazinuhu yi ñu nattee ay yiwam ah fa ulaayka ñooñee hum ñoom rek al muflihuna ñooy way texe ña yàlla ñu ci yàlla boole waaye wa man ña nga xamante ne xafat woyof na mawazinuhu ay nattukaayam dañuy peese ci moom te muy ay ñaawteef yiwam moom woyof ñaawteef yaa fa nekk yàlla na fa ulaayka ñooñu allazina ma ña nga xamante ne xasiru perte nañu anfusahum seen bopp waaw mooy seen raasul maal waxuma bénéfice ba bi ma ca sababu la nga xamante ne kaanoo nekkoon nañu yas li ma doon weddi bi ayatina sunu kéemaan ya kéemaan yi nga xamante ne mooy tegtale sama kàttan man yàlla wa fii kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid wala boog bi ayatina eh, mujizaat yama feeñe la woon ci samay loxo yeneen te muy tegtale seenub dëggu wala boog bi ayatina laaye alquran téere boobu ma wàccee woon di santaane ay yore ay santaaneem làmboo ay tere ñu weddi woon ko suñ borom nee na ñooñu rek perte bis la boo xam ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa mas na di xutba di waxtaan ak saxaaba yi ba ñépp jooy sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha laaj ko nag ne ko yaa rasulallah maa keroo da ngeen ñu bàyyi xel yowmal qiyaam yonent bi ne ko ñetti barab de kenn du fa ketal kenn kudul sa bopp kenn du fa bàyyi kenn waaw waajur du fa tal doom yonent telu fa kenn boroom kër telu fa soxnaam sëriñ telu fa ab taalibi kenn ko ne sa bopp ngay tal mu ni ko bu ñépp jógee te xam ngeen ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa nee na moom bu ñuy ñëg daanaka ak rafle gu doy sëkk moo fay am ak tànki neen ndax amul kenn ku ñuy suuli solo lay dàll kon nag bu ñu la nee foofu daa solo ay dàll itam xel du ko nangu mu ne bu fekkee ni téere yi kenn ku ne ñu naan leen haa umuqra'u kitaabiya ba ngay wax ne sama téere ngi nii kaay leen jël seeni téere téere yu jóg xamoo ndax da koy jëlee ci sa loxo ndeyjoor wala sa càmmoñ kenn ku ne sa bopp rek nga tal bu ñuy peese jëf yi xamoo ndax sa yu baax mooy wat xamoo ndax sa yu bon mooy wat ku na sa bopp nga tal ndax say jëf rek lañ lay peese buñ jëlee siraat tëral ko ci kaw jahannama wa in minkum illa waariduha kana ala rabbika xatman maqdiya summa nunajji alladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jusiya kenn xamul ndax da ngay rot ci biir jahannama wala ndax danga jàll siraat ku na sa bopp rek ngay tal mu ne ko ñetti barab yooyu kenn du fa kenn suñ borom nee na wala xadd wallaay cëg dëgg makkannaakum jekkuloo nañu leen yéen xeetu doomu aadama fil ardi ci suuf ngeen di fi bay di jële seen wërsëg di tabax di dëkk di wut ndox di tëdd di tëdd di nelaw fu leen neex tukki wala xad makkannaakum fil ardi wa jaal naa ñu defat lakum ñeel leen fiiha ci suuf maayisha ay lu ngeen di fàggoo seeni wërsëg ñee ngay commerce ñee ngay bay ñee ngay kërti kërti ci seeni liggéey seeni métier suñu borom nee na mooy as asbaaban taayishuna biha jamu maishatin waaye nag ànd ak loolu lépp est-ce que yéen a ngi delloo cant gi yàlla ca la mu yel lool waaye sunu borom nee na lii ma leen defal lépp ànd ak loolu xalila néew na maa torop li taakidil qilla maa ji na bu ngeen sante ci loolu wa laqad xalaqnaakum dëgg bind nañ leen yéen doomu aadama dañoo tudd sunu bàyyi lay wax ndox ñun ñépp mu ñu yóbbaale ci biir muy maam aadama summa topp sawarnaakum ñu melal leen kon ba mu tuddee melal gi rek xam nañu maam aadamaa tax ak yéen ci ndigg ndiggalam ndiggam mooy bi yàlla bindee doomu aadama melal ko te na nga xamante ne mooy melokaanam ba sob yàlla su maqul naa topp ñu wax lil malaayikati ñeel malaaka yi usjudu sujjóotal leen sujjóot leen li aadama ñeel maam aadama mooy ba yàlla dugalee ci moom ruux rek ah mu daal di sant malaaka yi nañu ko sujjóotal su ko defee mu fassiruna yi boroom xam-xam yi yàlla yàlla yeesal ay yërmandeem ci ñoom te yàlla fayal ñu leen lu ne wax nañu ko ci waaw ñu ne sujjóotu sujjóotu sëgg la sujjóotu nuyoo la ñu ne déedéet sujjóotu jë la ndaxte da nga wax lu ne lu ne wax nañu ko waaye malaaka yooyu la ñu jëfandikoo moo di ndigalal yàlla maadaama yàlla moo ni leen sujjootal leen aadama buñ ko sujjootalee ñoom sujjootaluñ kenn ndigalal yàlla la ñu jëfee wala de kon nag suñu problème nekkul ci sujjoot bi ak naka la ñu sujjootee ce que aadama war nañ ko sujjootal ndax dafa nekk xibla buñ jublu di sujjootal loolu lépp amul maanaa li am maanaa moo di ñoom yàlla sant na leen jëfandikoo nañu santaane yàlla moo tax su ma qul na lil malaykati sujudu li aadama sujootal leen aadama fa sajadu ñu sujoot mooy ñoom nangu nañu ndigalal yàlla jëfandikoo nañu ko illa iblisa ndere iblis iblis nag bokkul ci ñoom bokkul ci seen xeet ndax malaaka yi laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun malaaka ñoom yàlla nee na mënuñoo mooy yàlla moo tax li leen yàlla sant rek lañuy def li tax a mooy nekkul ci ñoom waaye iblis euh, lànk gi mu lànk mooy wane ni moom bokkul ca malaaka ya ndax malaaka yi ñoom du ñu lànkal yàlla ndax mu amul mënuñoo lànkal yàlla ndax yàlla moo leen bind ci loola beneen bi itam mooy bàyyu jinne yi beneen bi itam danga dégg mu ni maa ngi ma bind danga ko gis ana xayru minhu xalaqtani min naarin te malaaka yi yàlla ngi leen bind ci leer kon bokku ca waaye léegi-léegi taxawaay ba mu amoon ci xeetam ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla di topp yàlla ba yàlla yéegee ko ci darajay martabay malaaka yi ba ba muy santaane sujjut mu dugg ci biir ndigal la looloo am iblis sujjootul moo tax mu ne fa sajadu ñoom ñépp ñu sujjoot illaa iblisa nderee iblis moom de lam yëkkun nekkul saajidan di aji sujjóot mi ne saajidina bokk ca groupe way sujjóot ñi moo ñu nangoo jëfandikoo ndigalal yàlla kañ laak naka la boo demee ci xaasiye bi nee na ka njëkk sujjóot bi yàlla santaane mooy jibril mikaayil topp ca israfil topp ca azrail topp ca al malaayikatul muqarrabuna topp ca diir ba nag lu ne wax nañu ko ca allahu aalam qaala sun borom ne ko ee yow iblis ma manaaka an laa tasjuda xam maanaa moomu bokkul ak ma manaaka an tasjuda bii moo gën a dëgër ndax léegi-léegi al man u mën na am bàyyikoo ci al imtina maa mën a aka ana lu tere la allah tasjuda ba nga lànk kàndaare bañ a sujjóot is ba nga xamante ne amartuka sant naa la ak sujjóot ana lan la iblis tontu am na lu ñu sunu borom di xamal mooy dayo iblis ni mu mel ak doomu aadama mu ñuy nettali histoire bi mu amoon ak sunu maam te Iblis moomu ba léegi mi ngi fi fi mu jaaroon ak sa maam te wa ak lu mu waxoon loolu la suñu borom di wax ak ñun yow Iblis lu tee su jootoo moom dañ kaa laaj lan moo tax su jootoo lan moo tax nga lànk su joot waaye nag moom ci ak rëyam la tontoo xaala mu ni ana man xayrun maa gën minhu ci moom bu ngeen déggee tontu bi maa ko gën lu tee nga def nangam nga ni ëpp naa loolu parce que li ma bëgg a def loo man sama daraja ëpp na loolu kon rëye ko lal suñ borom ne ko lu tee nga sujjóot lan la wax mi ngi mel ne ci misaal rek walillahil masalul aala nga fekk sëriñ beeg taalibe bi nga ni sëriñ bi jëlal jëlal eh, eh fobal dalli taalibe bi nga gàddul ko ko danaa la e man mii sëriñ bi man kay ëpp naa gàddu sama da sama taali sama daal li taalibe kon su ko defee moom iblis li mu wane mooy ak rëy léegi nag toujours ñaare la nga moyee yàlla safaan bala la yàlla di jox fayee comme ak rëy moo tax mu wax lii moo tax danga gis ci biir laaye bi yàlla indi torxal ko mooy indil ko suufeel ko moo tax mu ni adaman xayrun maa gën minhu ci moom xalaqtani yaa ngi ma bind yow yàlla min naarin ma tukkee ci màcceeru safara moom wa xalaqtahu yaa ngi ko bind min tiirin ma bàyyi ko ci màcceeru ban kon maa ko gën kon lu tax ma koy sëggal lu tax ma koy sujjootal xaala sun borom ne ko fëhbit daal koy dégraté wàccal min ha ca ja ñii na ci asamawaati moo tax min al jannati wa qila min asamawaati ndax fa maa yakunu yellul laka ñeel la an tatakabbara ci ngay rëy rëylu ngay sàkkoo rëylu fiiha ci xadaraat yi fii rëy rëylu amu fi faxruj faxruj génnal tukkeef innaka wér naka ni yow la saaxirun min a saaxirina yaa ngi bokk ci ñamay toroxal comme da ngay sàkkoo rëy ma toroxal moo tax léegi-léegi lu mu mën ci doon rek naqit ba la yàlla fayee moo tax ñu nii boo reyee nit sax doo donn ca alal ja bu dee reyu tey doo donn ca alal ja doo donn ca diyee ja bu dee reyu njuum te diyee ja nga joxe doo ca donn waaw comme loo sàkku rëy rek foofa toroxtaange moo fay mujj sun borom ne ko génnal bokk ci ñi torox waaye iblis am na lu mu wax ak yàlla xaala mu ne ko anzir ni muñal ma may ma ma dund yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma nga bañ ma rey may dund ilaa yam yu ba asuna ba bis ba nga xamante ne lañuy ñuy dekkal nit ñi boroom xel la nag xam ngeen ne bu ñu dekkee moom gannaaw dekk dee amul kon mi ngi bëgg a tëb dee <laughs> ah sun borom ne ko xaala sun borom ne ko innaka wér na ni yow nangul naa la muñal gi waaye nag dig ba nag mooy fa nga bëgg du foofa miinal minal munzarina la innaka la munzarun minal munzarina bokk ci ñu ñu muñal ilaa yemil waxti jëm ci bisug waxtu ba almaalumi ba di bu ñu xam dafee nag euh, mufassir bi nee na mooy waxtu nafxatil ula waaye yàllaa xam an al waxtul maalum mooy lu ñu xam li yàlla xam mooy al waxtul maalum mooy ba yàlla di xam mooy bu dig ba jotee rek suñ borom jëlee ko iblis ne yow yàlla fa bi ma aghwaytani baa gi baawul qasam la jawaab ji mooy la aqudanna lahum waa ji maa ji masdar ya la ah moo tax da ngay jël jumla ja rek taawil ko masdar kon fa bi ma aghwaytani fa bi igwaika lii giñ naa ci bewloo gig ma bewloo yow yàlla ma ngay jël mbew kat bëgg a féetaleeg yàlla te xamul ne yàlla defal na ko ixtiyaar jox na ko ko bokkul lag malaaka yi la aqudanna dinaa frankulaay la aqudanna dinaa toogu la aqudanna dinaa toogu di dogaale tooguk dogaale lahum ñeel xeetu doomu aadama muy aadama ay sëtam ndax nit ki bu taxawee ba sonn lu muy wax téema toog su doxee ba sonn lu muy wax téema toog su tëddee ba sonn lu muy wax téema kon toog mooy li gën a jekku moom nag moo tax mu utiliser ko ne ci laay mën a faranku lay toog nag waaye nag di dogaale ak di dévier doomu aadama yi siraataka al mustaqim kon dakaar na sa di nas il xaafi di ala siraatika al ci kaw yoon waa yoon sa al mustaqim wi ni coow mooy yoon bu baax bi kon iblis mbokk yi ca yoonu jàkka ja la nekk ca yoonu saraxe la nekk ca yoonu dox mbokk la nekk ci yeew yoonu jokk wóllëre la nekk ci yoonu def lu baax la nekk waaye yoon wu bon iblis nekku fa ndax nee na fi muy toog mooy la aqudanna lahum siratakal mustaqim kon boo demee ci barab boo xamante ne naka sadul noona moo fa nekk loo xamante ne yàlla santaane wu ko gërëmu ko na la wóor ni iblis moom nekku iblis bu njël jotee nga war a jóg ma nga fa nga wutali jàkk ja ma nga fa nga bëgg a diisoo ak sa mbokkum jullit defal ko lu baax iblis a nga fa lépp loo xamante ne mooy tax nit texe ëllëg foofu la iblis di farankulaay la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa topp la aatiyannahum giñ naa ni dinaa leen dikkal ak ñoom xeetu doomu aadama min bayni aydihim bàyyi ko ci seen wàllu kanam wa min xalfihim dinaa leen ba dikkal bàyyi ko ci seen wàlli gannaaw wa ay anwaani wa an aymaanihim giñ naa ni dinaa leen bàyyi ko ci seen wàlli ndey joor wa an chamailihim giñ naa ni dina leen dikkal farankulaay dox seen diggante ak yoon wu baax bàyyi ko ci seen wàlli càmmooñ ñaata ñaata wàlla ah ñeent mu des ñaata kaw suuf kaw suuf foofu ay malaakaa fa nekk ma izzu rububiyati wa zullul ubudiya foofu amu fa accès su ko defee nag kon wàllu yooyu yépp ne dinaa fa dikkal doomu aadama ah kon de ñun doomu aadama nga la ñun xanaa rek musalug yàlla fa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nasghun nasghun looy wax fasta'iz fasta'iz billah wata benn boroom xam-xam ma son na ko wax laaj ko taalibe bi ne ko ndax dëkk ba mu ko yewee ne ko ndax dëkk ba nga dëkk iblis am na fa mu ne ko waaw kay sëriñ fan la iblis nekkul mu ne ko soo demee nooy doxalanteeg moom mu ne ko sama jax-jaxalee ah ma daal di dellu tuub mu ne ko ah mu ne ko mu dikkaat nga dem ma ah ma daal di delluwaat xanaa tuub mu ne ko tee ngaa dem làqu ci yàlla rek bu dee bu ñëw jax-jaxal ngay jañ ngay jañ rek mu ne ko mi ngi mel ne boo gisee ab xaj loolu ñu tuddee kalbu nga nekk ci aw yoon yoon wi xaw a xat moo ànd ak boroom boo bëggee mucc ci xaj bi nan ngay def dem làqatu ci boroom xaj bi rek boo làqatoo ci boroom mucc ca moom kon nag ab seytaane moom kalbu la rek boo bëggee mucc ci moom dangay dem seet boroomam muy subhaanahu wa taala nga wax auzu billahi min asheytaani rajim waaw summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim ñu ni doomu aadama lenn nekk ci kanamam fu mu jublu la ci kanamam mooy àllaaxira bis bu ne mi ngi dox jëm fan àllaaxira kon iblis dina la dikkal di la jax-jaxal ci mbiru àllaaxira ci say jëf ak ci say wax ne la ah àllaaxira de aljana ak safara moom ay deuxième la fan la aljana war a nekk fan la safara war a nekk niñ ko waxee ci ban monde la nekk ah tabaarakalaw ni science développé bu fekkoon ne aljana am na fenn fa mu nekk gaa yi trouvé ko ay jëf joo jëf ñu fay la boo defee lu baax ñu fay la boo defee lu bon ñu fay la ko ak mbugal mi niñ koy waxee biir biir bàmmeel de yeeg yooyu est-ce que loolu dëgg la su ko defee lépp lu jëm ci wàllu alaaxira iblis dana fa dikk di la ci jax-jaxal ba daanaka doo ko dëggal dëgg dëgg dëggal doo ko gëm dëgg dëgg ngëm ba bàyyi ko xeel ci say jëf ak ci say wax su ma la aatiyannahum la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim lan mooy gannaaw doomu aadama gannaaw doomu aadama mooy njabootam ak i sëtam ku ci ne nga naan ah bàyyi xel sa gannaaw ci li ngay liggéey nangam góor góorgóorlu liggéey ndax boo fi jógee sa njaboot am ci luñ mën a jàpp yaa ngi bàyyi xel sa gannaaw waaye ñi mu gën a fitnaal mooy ñi am martaba yu kawe yi yàlla buñ la fal benn fal bu kawe rek nga ni hée comme fii jekku naa ko naa profité ndax sama njaboot nekk ci situation bu baax ba samay sët nangam nangam ba tax na doo xool ana ban mat ngay taxan da ngay dajale rek di dajale rek pour bëgg say wi nu mu rëyee rek na na baaxee ci yow su ma la aat aatiyannahum min xalfihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim doomu aadama ñaar la am muy ndeyjooram jooram ak càmmooñam ndey joor ramz la symbole lu baax la mooy ramzu al fi'l mooy symbole jëf ju rafet ah ma lay waxool ci sa jëf yu baax yi ma ngi la cay topp loo góor góorlu ba def ko ma ngay fexe rek ba nga gis ca sa bopp ndax xam nga ni defal nit dara ba pare toog ci digg pénc ma di ko fa wax wala boog nga toog ak keneen ne diw maa ko defal nangam maa ko defal nangam maa ko defal nangam li tax jëf ji du denc sa xel jamono bu na muy teew mooy màndarga ne yàlla nanguwu ko ndax suñ boroom nee na ilayhi adul kalimu tayibu wala amalu saalix yarfau suñ boroom nee na jëf ju baax dama koy yékkati te luñ fi yëkkati duutu fi nekk boo defee lu baax ba pare fàtte ko sa xel nekkatu ci xalaatatoo ko loolu màndarga bi wane ne yàlla nangu na sa jëf la waaye jëf ba pare rek jëf yi tege ci sa jëbi ah lonk fa heure bu ne yaa ngi koy teg bët loolu màndarga bi wane ni loolu nga am ci jëf ji wan bokkul ci jëf ju ñu nangu wa an shamaa'ilihim dana leen dikkal itam ci seen wàllu càmmooñ yi jëf chimal moom dafay symboliser jëf ju safaanu mooy defal lu bon ah defal lu la neex rek tuuba ngi fi yàlla nangam yàlla ko baax la yàlla xaju na lépp yàlla du fa yontee kenn koor yàlla du fa yontee kenn julli ah léegi mu jeex sun borom nee na côté yooyu yépp iblis dina ñëw ak yéen ci côté yooyu ba tax na wala tajudu aksarahum shakirin sun borom nee na iblis loolu la wax ak yàlla xaala suñ borom ne ko uxruj waxaat na ko ko génnal min ha tukkee fa foofee nag aljana walla ca asamaan ya wala ca xadraat yooyee mu nekkoon ba amoon teraanga di wax ak yàlla suñ borom dégraté ko mad ma mazuuman mbirum nekk sa ngay ku ñu ëyibal mbirum nekk sa ngay ku ñu ŋàññi ku ñu bañ madxuuran di ku ñu sorel sama yërmande sun borom ne ko la man giñ naa ni laam ji laamul ibtidaa la hmm. la man képp koo xam ne du xasam la man képp koo xamante ne tabi topp na la minhum tukkee ci ñoom xeetu doomu aadama yooyu la am la an na giñ naa ni danaa feesal jahannama safaras jahannama minkum tukkee ci yéen mu def ko taxlib ak ghaib bi yéen ñi ko topp ak ñe ak ak ñi yéen ñi teew ak ñi fi teewul aj ma ina mboole seen hmm. suñ borom nee na ku topp iblis fa ngay mujj mooy jahannama yaa ngi ci àll musal suñ ma ngay wax ak maam aadama wa yaa aadama yow aadama uskun dëkkeel anta yow ah il faut mu feeñ dafay def taakid ci damir ba nëbb ngir mu ca atif ante yow wa zawjuka ak sa soxna di xawaa aljannata aljana uskun anta wa zawjuka aljanna Hmm? Hmm. waaw ci saa si waaw rëy ci la bopp rëy rëy yàlla du ko xaare alaaxira moom ci saa si rek foo gis nit rëy rëy ko rek ca la muy feeñee ak rëy ca loolee la ñuy gis ak trox tàngeem moo xam nag ci domaine bu ne loo gis nit di ca tiitaru rek ci lay sëgg aw loosam hmm? moo xam ci pal moo xam ci leneen ak leneen fa la yàlla ah, te te te te te teddal yëkkatee daal fa feeñal ak réylu rek ca foofee da fa gis ñu saw saw des na seen ñëpp seen nga sëgg fa jërëjëf sun borom yow aadama dëkkal aljana uskun anta wa zawjuk ak sa soxna aljana te aljana fakkulaa lekk leen min xay su ciituma fu leen neex waaye nag wala taqarabaa rikk bu leen jege haadihi shajarate bi le garab cig lekk ah luñ ne la bu ko jege nag kookee te te tere jege jege ga la tere kon kenn waxatul lañ la la ah laal ga ah, kuñ tere jege kenn waxula laal ga ndax tere jege moo gën a garaaw tere laal ga sun borom ne àjjana li fi nekk ci garab lépp lekk leen min haysu shi'tuma garab gu leen neex ak fu leen neexee waaye nag wala taqraba hadihi shajara ah boobu lañ war a xam ne daañu génn àjjana comme am na lu ñu leen fa tere rek bàyyi leen ko fa xel kooku mooy jannatu tajriba kumpa dañ kumpa doomu aadama jox la fukki palaat ciy teraanga ne la juróom-ñeent yépp ubbil la ko bu ci na nga gis la ca nekk ba ca des mu tëj ko bàyyi ko fële ne la bële nag bu ko kenn tijj waxuma bu waxuma tijj waaye bu ko kenn jege lu ngan nga neex neex neex neex neex bëgg a xam la ca ba tëje dana tax ngan nga naqare ci yow sun borom nee na bu leen ko jege ndax bu ngeen ko jege fa tekku naa kon dangeen nekk yéen ñaar zaali may ni di way tooñ ndax bu boobaa jël ngeen ndigal li daal koy teg fu dul teguwaayam mooy bàyyi ko mina zalimina bokk ca way tooñ na ah fa waswasa daal di jax-jaxal lahuma ñeel ñoom ñaar ak cheytaanu laay laaye bi nag wax dëgg yàlla dindi na tuumay jigéen ñi fa waswasa lahuma cheytaan kon ñiy wax ak di bind ne aadama hawa moo jax-jaxal maam aadama moo ko won seetu ñu ñëw wax ko wujjee xuma nangam nangam lu ne ñu wax ko ci alquran dafa ni moom seytaane fa waswasa moo jax-jaxal lahuma ni mu jax-jaxalee aadama noonu la jax-jaxalee xawa fa waswasa lahuma seytaanu seytaanu mooy faayil bi moo def waswas léegi lan la leen jax-jaxal alquran dinañu ko wax waaye lan mooy cause jax-jaxal bi mu ni li yubdiya ngir na sàngi sutura lahuma ñeel ñoom ñaar ngir na wuññi feeñal lahuma ñeel ñoom ñaar maa la nga xamante ni wuuriya la mu jóge ci almuwaaraat na béefa woon na ko anhuma wëlif leen luñ mësul xam ci seen bopp musuñu ko gis ci seen bopp seytaane bëgg nañu teg ca bët mooy seen sutura sàgg min sawaatihima min ja minum bayaan la laala moom seen awra la ñoom ñaar ma dégg ngeen wax jëm déet ana lan la leen waswasal fa waswas ji li koy firi moo di waswas bi mooy lan mooy waqaala dafa wax ne leen yéen de maa nahaakuma terewu leen rabbukuma seen boroom an haasihi shajara ci jege gila garab ci lekk illaa an takuuna nderee bañ ngeen nekk yéen ñaar malakay ni am qadaasa am daraja am tolluwaayu malaaka yàlla bëggul ngeen nekk comme tolluwaayu malaaka yi ba demee ca suratu Taaha mooy shajaratul xuldi wa mulkin laa yabla mooy dafa leen a wax ne leen garab la goo xamante ni ku ko lekk dangay nekk buur bu dul jeex fii mu ne malaka yi ni moo tax ci riwaaya malika yi ni illaa an takuna malika yi ni di ñaari buur mu dëppoog ba ca Taaha wala malaka yi ngeen am tolluwaayu malaaka aw takuuna wala ngeen nekk xaalidayni di ñaar ñuy béyal biyal dëkk ci aljana minal xaalidina bokk ñu dëkk ci aljana mooy biyal ñi nga xam ne duutu leen dee kon iblis xërug doomu aadama dafa ñëw jax-jaxal maam aadama li alquran wax ne ko ak xawaa ne leen yéen seen àjjana gi de neex na waaye ah, tiit naa mu jeex de ah, bañ ngeen mu jeex lu koy yàlla bu mu jeex ah, su ngeen ko bëggee bañee mu jeex lekk leen garab gee yàlla di leen tere ndax yàlla dafa bañ bu ngeen ko lekkee bu ngeen ko lekkee da ngeen am tolluwaayu malaaka wala ngeen nekk buur bu dul folleeku te itam duutu leen génn aljana ñu dem lekk ko lii la alquran wax moo tax suñ borom ni maam aadama xéram fa akala minha fa akala minha waaw te waxoon na xala dulluka ala shajaratil xuldi wa mulkin laa waaye iblis yemu ca wa qaasamahuma mu faala la faala ñaar a koy def waaye léegi-léegi qaasama day ñëw faala ñëw ñëw nekk mu baalaxa mooy mu giñ mu giñal leen ci yàlla giñal leen ne leen billaahi nag giñ naa ci yàlla ne leen inni wér na ka ni man iblis wallahi lakuma yéen ñaar dangeen ngeen may intéressé dama leen a bëgg la min an naasixiina mooy la naasixun min an naasixiina maa ngi bokk ci ñi leen di laaj biir dama leen di laaj biir seen njëriñ rek laa leen di xamal dee naa leen ko nag bu kenn yëg daal dina wàññi daw sun borom nee na malheureusement fa dallaahuma baatu dalla mooy yoor boo nee dalla zeydun rijlayhi fil bi'r mooy zeyd tàllal na ñaari tànkam yoor ko ci teen bi martabab tolluwaay bi ñu tolloon maam aadama ak maam xawaa li leen iblis jax-jaxal ñu nangu jax-jaxal googu tax na fa dallaahuma wàccee na leen fa dallaahuma suufeel na leen sippi leen jëlee ci leen ca daraja ja ñu woon bi xururin ci sababu ay war ay nax yi neen li tax mu nax nekk ay nax iblis xanaa du moom lañu santoon mu sujjóotal aadama mu bañ xanaa moom du moom moo doon ñaan na yow yàlla anzirni ila yawmi yub'asuna moo ko doon ñaan de wala déet kon kay moom aadama waroon na bàyyi xel ci ne shajaratul xuldi loo xam ne ku ko lekk doo dee bu amoon iblis mii doon wut ñu bàyyi ko fi kay du ko fi teggi wala déet ca dëgg-dëgg kon lépp mu ngi amee ci wóor-wóor sun borom nee na fa lamma zaaqa ba ñu mosee ashajarata garab ga ca saa sa badat la feeñ lahuma ñeel ñoom ñaar saw aatahuma seeni awra al a saw a mooy li nit di bañ ku ko gis ci moom ah mooy awraam xam nga yañ doon lekk ca aljana yooyu wërsëgi yàlla la ñamu yàlla boo koy lekk doos du sa yaram de la sa yaram di jariñoo rek lay jël mooy déchet du ci am waaye bañ demee lekkal seen bopp lañ boo lekkalee sa bopp rek soxla sa bopp xam ma dégg ngeen wax jëm bañ demee nag wuta lekkal seen bopp lañ soxla seen bopp ñoom mësuñu woon a xam ni ah soxlawuñu woon xam seeni awra ndax daawuñu ko soxla waaye biñ lekkalee seen bopp te léeg ñu lekk dafa war a génn bu génn ba jotee rek ñu xam ni am nañu am na am na génn waay moo tax alquran nee na loolu ci misaal la rek li ma leen wax moo tax alquran nee na fa lamma zaaqa ba ñu masee a shajarata garab ga mooy ba ñu ca lekkee ca garab ga badat feeñ lahuma ñeel ñoom ñaar saw aatuhuma ah seen lañ doon nëbbu seen awra wa tafiqaa ñu commencé ndeysaan yax sifaani di watt ci xobi aljane yi moo tax di yax sifaani di tay yax sifaani di taf alxasfu mooy nga sol dàll ba taloo ba jeex nga jël benn der wala dara taf ko ca loolu mooy alxasfu xasafa yaxsifu xasfan yaxsifaani ñuy tey di taf ah alayhima ci seen kaw min waraqil janati lu tukkee ca xobi aljana ya ngir ñu mën ci suturlawu moo tax ñu wax ne société boo gis ak wuññu sutura am fa mooy teggi nañu ndigalal yàlla ndax ñoom maam aadama gis nga bi ñu teggee ndigalal yàlla rek la seen sutura xawwi ko du loolu nga gis ah moo di wattafiqaa yaxsifaani alayhima min waraqil jannati ñu commencé nag di am coono pour suturaal seen bopp wa naadaahuma ayu leen woo leen rabbuhuma seen borom ne leen hey alam anhakuma moo ndax terewuma leen woon an tilkuma shajarati ci googalee garab nga ni kumaa ji nag ma ni la kumaa ji xitaab la day ànd ak ishaara di dox doxuwaayu damir waaye du yore jëfi damir di nekk mufrad ba ca muzakkar ba ak mu annas ba ah, fa tabaarakallaahu ca tasniya ba ca jam u ba na ko damir amee noonu noonu la koy amee moom mu nekk lan xarfu xitaab lay doon waaye day tolloog ka ngay waxal anaat ban taxaw la taxawaay ci kenn ci ngóor wala ci jigéen wala ci mbooloo walla ci ñaar an tilkuma shajara comme ñaar lay waxal mu ne tilkuma shajara sun borom ni ndax waxuma leen woon bu leen laal googalee garab wa aqul ma waxoon lakuma ñeel leen yéen ñaar ndax waxuma leen woon ne inna seytaane naka seytaane adduwun ab noon la mu biinun bu dee aji biir jig noone lakuma ñeel ñoom ñaar yàlla waxoon na leen ko moo tax boo demee ci suratu taaha ba tey ma ngi ko fay wax wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasi fa nasiya walam najid lahu azma kon maam aadama yàlla nee na wóllërante na ak moom wóllërante ba ma wóllërante ak moom moom mu fàtte ko la mu fàtte amu ci dogu la mu fàtte mooy la ma ko waxoon ne ko inna sheytaana lakuma mu mubiin léegi nag yëg nañ ni tooñ nañu yëg nañu seen sutura xawweeku na ndeysaan mu daal ñu daal di jégg fa talaqaa aadama min rabbihi kalimatin fataaba aley innahu wa tawaabu rahim mooy moo tax la ana loolu qaala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin moom mooy firi fatalaqa adam min rabbihi kalimatin kalimat yooyu mooy rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin ca surtu baqara nga delluwaat ci fataaba alayhi kon maam aadama yàlla baal na ko waaw ah moo tax mu ni xaalaa ñu ne rabbanaa yow su yaa rabbanaa yow suñu borom ñun de zalam naa tooñ nañu anfusanaa suñu bopp ci sunu mooy giñ la mooy bañ a topp sa ndigal wa in lam taxfir ay boo jéggalul lanaa ñeel ñu yow yàlla wa naa nga yëram ñu wallahi la nekku na daañu nekk minal xaasirina bokk ca perte kon ñoom iblis mooy na yàlla waaye daa feeñal ak rëy maam aadama ak maam xawa mooy nañu yàlla waaye feeñal nañ ak toroxlu daal di tuub yàlla jéggal leen qaala dina la jaaxal na nga naan maam aadama pourquoi ñu naan zalab naa an euh, tooñ na yàlla mooy na yàlla wa as fa asa aadamu rabbahu fa gawa summa jitabahu rabbahu fa taaba alayhi wa hada te muy ab yonent nga ne ko boobu est-ce que nekk na yonent qaala sun borom ne ko ihbitu wàcc leen aadama ak xawaa baadukum lenn ci yéen muy ay sëtam adduwun di noonu li baadi ñeel lenn waaw mi ngi noonu kenn ku ne di tooñ sa moroom rek daa fekk doom sax nekk noonu baay ba walakum ñeel leen fil ard ci suuf mustaqarun ak saxuwaay makanu istiqraar wa mataaun ak xéew mooy lu ñuy xéewloo ilaa xiinin jëm ci seen digi jeex ilaa xiini yi fihi ajalukum qaala suñ borom ne leen fiihaa ci suuf tax yow na ngeen di dund ci ngeen di dund bu seen dee jote wa fiihaa ci suuf te muutu na ngeen di faatoo waaye itam ci lañ leen di suul bu dekki jotee wa na def na génne leen ci dekki min haa jële leen ci suuf yaa ba bani aadama sun borom nag nettali nañu histoire yooyu xewoon ci maam aadama ak léegi nag mi ñuy jëmale woote bi ñun doomu aadama yi yaa bani aadama yéen doomu aadama yi aa ah, qad anzalna dëgg wàccee nañu aleykum ci yéen mooy jox nañu leen libaasan ay col yoo xamante ni yéen doomu aadama yi bind bindalat naa leen yoon wa day gudd yuwaar yi boo xamante ni dana suturaal dana suturaal saw aatikum seeni awra loo xamante ni da koy sol mu mën la suturaal ci sa awra bokkul ak col booy solu pour génn di ko taarlu suñ borom nee na bu ci ne indil naa leen ko maa leen ko jox warishan ak col goo xam ne da ngeen koy taarloo wa libaasa taqwa jàng nañu ko wa libaasu taqwa jàng nañu ko wa libaasa taqwa mu atif ca ak colu ragal yàlla zalika waaye colug ragal yàlla googee xayrun moo gën wala boog nga ni wa libaasu taqwa de naam colu taarlu boobu de baax na waaye wa libaasu taqwa colug ragal yàlla mu nekk mubtadaa zalika nekk mubtadaa beneen xayrun jumla ja nekk xabaru mubtadaa bu njëkk ba wa mufradan yaati wa yaati jumla xaawiyatan maana alladi siqat la bu boobaa nekk rabita bi nekk ismul ishaara bi dellu ca libaasu taqwa ji mbokk yi laay bi dafay laay bu am solo ñetti col la yàlla indi ne moom laa leen jox mooy col boo xam ne dangeen ci mën a sutural suturluwu ak col boo xam ne mën ngeen ci lu ak col boo xam ne ak ragal yàlla la ba pare joxañ colu ragal yàlla bi ne boobu moo gën xam ma yéen a ngi déggam déet kon jëmm bi nga xamante ni moom jëmm la luñ mën a laal la am na col bu koy suturlu danga sol lu sàmm say awra mais nag mu mooy colu kër waaye mënoo kaa génnee loolu ci xéewalu yàlla la bokk waaye suñ boroom nee na am na beneen col boo xamante ne mën nga ko génn taarloo ko waaye col yooyu ñaar yooyu liñ mën a sàmm mooy sa jëmm waaye suñ boroom nee na jox naa la ay valeur valeur yooyu nag am na col goo xamante ne moo koy taaral muy lan muy ragal yàlla nu ko mën a mel te àndul ak ragal yàlla rek mooy jikko bu rafle la lu manti doon jëf bu manti doon ci maanaa te àndul ak ragal yàlla jëf la boo xamante ne suñ borom nee na wodduwul bu woddoo itam taarluwul kon nag libaas bi nga xamante ne yére yii mooy sàng say awray biir say awray bitti waaye ragal yàlla mooy sàng say awray biir non seulement ci àdduna waaye boo duggee ci biir bàmmeel ak yowmal qiyaam mooy lal nga xamante ne moo lay suturaal ba ba ngay dugg aljana mbalaanum sutura mooy at taqwa moo tax mu ne kon jox naa leen zalika xayir zalika libaasu taqwa boobu xayir ndax dina la suturaal àdduna suturaal lal alaxira sun borom nee na zalika loolee nag min muy isha ismul ishaara bi mi ngi dellu ci libaas bi bi yàlla wàccee ci yéen nee na min ayatillaahi mi ngi bokk ci tegtale kàttanu yàlla la allahum ndax lee ñoom rekk xeetu doomu aadama na ñu mën a waaru moo tax mbokk yi col gu baax ci wërsëgi yàlla la bokk moo tax ñu wax nii bu fekkee ni dangay gis léegi léegi doomu aadama bu ne man de damay sol ay sagar ndax man daal àdduna fii laa ko teg amaana col googu muy sol pour wane man dama toroxlu dama dëdd àdduna bu fekkee ni da ciy jublu ku ko gis yaakaare ko wilaaya ak tàll koy loxo mu ñaan kookee da baaxul ki sol ay grand mbubbam yu rafet waaye itam jublu ci nii laa toll nii laa taaro bëgg àdduna boobu de baaxul waaye nag ki nga xamante ni dafa jóg jublu ci li muy sol feeñal xéewali yàlla lu mën a sol du ko lor moo tax boroom xam-xam ba jublu ba moo ci am muy wax ne laysa tasawufu labsu suufi wal xalaqi bali tasawufu xusnu samti wal xuluqi mu ne ak tasawufu nekkul ci soli sagar ak sol yoo yëre yoo xamante ni yu doyadi la waaye ak tasawufu moo di rafet jikko ak rafet melokaan mu ne fal bas min al libaasi maa taxtaaru anta wa qum junxal layli wa ajri dama fi l xasaq yi nee na solo lu la neex waaye bu guddi soree na nga jóg julli toroxlu sa borom jooy ci kanamam wan ko sag doye di ak sag waxoon na leen ko ci seytaane ñaari barab mënu faa ñëwalu fa doomu aadama ñeent la waxoon ñaar ya moo di fi doomu aadama di jël jëwam di ko teg ci suuf di fa wax ak boroomam foofu amu fa accès seytaane amu fa accès tàllal say loxo di ñaan sa boroom muy kaw foofu do seytaane amu fa accès ndax foofu foo la doomu aadama di wane ak toroxtaangeem dëgg dëgg dëgg dëgg fi doomu aadama di gën a jege boroomam mooy fi mu jëlee jëwam teg ko ci suuf te kiy ñaan day wane ni booba amul tële na lépp ki am kenn la muy subhaanahu wa taala diggante boobu seytaane amu fa accès moo tax ñu wax ne izzu rububiyati bi bàyyi ko ci kaw wa zullul ubudiyati diggante boobu seytaane amu ci amu ci wàll suñ borom ne yaa bani aadam yéen xoomu xool yéen xeetu doomu aadama rek laa yaftinannakum ewaay bu mu leen fitnaal bu mu leen nattu bu leen sànk ak seytaanu seytaane waxul wax jàkkaarwul ak seytaan ne ko bu sànq doomu aadama yi de mais suñ borom doomu aadama yi lay wax ne leen jël leen seen matuwaay te la bàyyi xel seen bopp ba seytaane mële saay-saay bi bu mu leen bu mu leen bu mu leen tarxisloo walaa yaftinannakum bu mu tarxisloo leen bu leen sànq leen bu mu fitnaa leen ak seytaanu seytaane kama axraja comme ni mu lee woon ba génnee abawaykum seeni bàyyi ak seeni yaay di maam aadama ak xawa minal jannati ñu tax ñu génn aljana loolu la tuddee borom balaax yi tuddee ko al ixtibaak ni mu fitnaalee woon seen maam aadama ba génnee ko kon nag comme xamal naa leen ko góor góorlu leen maam aadama fan la ko seytaane génnee mooy jannatu tajriba wa tamrin kon nag yéen góorgóorlu leen ba jannatu taklif bu leen seytaane tax du leen fa dugg mu dégg ngeen wax jëm déet buur bi nee su ko defee xaala kawnihi yanziu muy wuññi di dindi anhuma wëlif leen libaasahuma seen yére ya li yuriyahuma ngir wan leen ñoom ñaar saw aatihima seeni awra innahu wér naka ni cheytaane seenum noona waaye noonu la boo xamante ne yaraakum mi ngi leen di teg bët di leen gis huwa moom wa qabiluhu ak lëlëm ba muy giiram ga min haysu na tarawnahum fu ngeen leen dul mën a gisee noon boo xam ne da gis te doo ko gis naqari naa xeexal waaye nag sun borom nee na ak lu mën a xew rek amul ci yéen kattan ndax inna kayda inna kayda sheytaani fa daifa naa naka ñun yàlla jaal naa def nañu ash dina sheytaane yi a awliyaa ñuy way méngoo di lëkkaloo li la zina ñeel ña nga xamante ne laa yuminuuna gëmuñu yàlla ci ñoom la cheytaane am wàll waaye jullit ñi illaa ibadaka la muxlasina inna ibadi laysa lakam alayhim sultaan ñoom fa isa faalu njéem def nañu fahishatan aw ñaaw téef ndax dañ daan wër kaaba ga nañ daan ajee mooy dañuy def yaramu neen di wër kaaba gi yaramu neen laa wax de kaaba gi niñ ko daan wëree yaramu neen su ko defee bu ñu leen waxee ñu ni xaalu ñu ne wajat naa fekkoon nañu a ah, alayha ci joojalee jëf aba ana suñuy baay ak suñuy maam loolee lay la ah du lay loolu njuumte la awalaw kaana abaauhum a yaaqiluuna shay'an wala yahtaduuna awalaw kaana abaahum laa laa yaalamuuna shay'an wala yahtaduuna nii laa fekkoon bàyyeeg maam yi doon ko fi defee rek ma defee ko est-ce que ñoom fi ñu ko tegoon teguwaay la wala déet kon loolu njuumte la te njuumte kenn du ko topp te wallaahu bur yàlla ñoom it ñu waxaat ne wallaahu bur yàlla amarana moo ñu sant bihaa ca loolee loolee moom ay fen la ndax yàlla sant leen ko moo tax suñ boroom bële du ko tont waaye bu mujj bi moo koy tont ne inna allaha naka yàlla laa yaamuru du santaane bil fahshaayi ci ñaaw téef ataquluuna ndax da ngeen di wax di waral alallaahi ci yàlla ndax dangeen di sosal alallaahi ci yàlla qaala alayhi mooy sosal na ko mooy wax na ci moom qaala lahu mooy wax na ko qaala bii bu ci ne arab dafa riche moo tax a taquluuna ala allahi qaala fulaanun ala fulaan mooy sosal na ko bu alaa gi ñëwee rek sos lay firi a taquluun ndax da ngeen sosal alallahi ci yàlla maa loo xamante ni laa taalamun a xamu leen ci dara istifham inkaar la qul waxal yaa rasulallah leen amara sant na na amara santaane na rabbi sama borom bil qisti ak maandu yéen de wa aqiimu jubale leen wujuhakum seen jëmm yi yàlla inda kulli masjidin fas bépp sujjóot masjid masdar la comme as sujud masdaru mii mi su ko defee waddu uhu jaamu leen ko moxlisina mbirum nekkam ngeen di way sellal la hoo ko ak diina jaamu ga bañ ko bokkaaleeg dara ndax moom kat yàlla kama badaakum comme ni mu leen sosee woon nekku leen woon dara tauduna leen delloo si yamal qiyaam ngeen di way dund loolu benn la ci pirinam yi kama badaakum na nga xamante noonu la leen soso woon ca azal ndax yow shaq yi nga wala said nga taudu noon ngeen di dellu see bu ngeen di faatu ci loolu ngay faatu loolu itam piri bu wér la bu ci ne alquran firi na ko fariqan ab kuréel tukkee ci yéen hada gindi na ko moom yàlla ba fariqan am na kuréel boo xamee xaqa yey na alayhim ci ñoom addalaalatu ak cànkute ci coob rek yàlla ci azal ak xam-xamam innahum naka ñoom itaxasu dañoo jàpp achayatina cheytaane yi awliya def leen way méngoo min dunillahi bàyyi fi yàlla wa yaxsabuna ñuy njort ne anna annahum naka ñoom muhtaduna way gindiku la ñu way jub la ñu yaa bani aadama ee yéen doomu aadama xuzu zinatakum jël leen seen matuwaay ci taar taarlu leen di sutura seeni awra inda kulli masjidin fas fépp fu ñuy jaamoo yàlla moo xam ca tawaaf bala moo xam ca julli ga la ah waaye laay bi nag sëñ bi yaatu na bu fekkee liggéeykat nga mécanicien nga nga xamante ne da jonjoo ak huile koo dendal mu taq bu julli jotee fexeel ba am mbubb moo sol ba boo demee ca jàkk ja doo génne kenn inda kulli masjidin su fekkee ni dangay yore yére boo xamante ni la ngay liggéey dafay taq koo dendal moo xam wala boo amaana xet boo xamante ne mën na kaa yore fexeel ba bu julli jotee amal mbubb moo xamante na koy réserver xuzu zinatakum inda kulli masjidin booy dem jàkka ja waaj waajal ko yaatu na yaatu na ba fexeel ba bul lor daal ña nga xamante ne ñoom nga bokkal jàkk ja moo tax mu ne na xuzu zinatakum inda kulli masjidin loo teg ah su ko defee nag wakulu lekk leen washarabu te ngeen naan wala tusrifu waaye bu leen ëppal moo xam bàyyi fa lu dagal la jëm ci lu xaraam moo xam lu dagal li kese itam wala tusrifu waaw lekk lekk lekk ba nga xamante ne daanaka këll këliñ tëdd rek ngay man too mën a jaamu yàlla dootoo mën a def dara boobu it lekk baaxul boobu it ëppal la moo tax ñu wax ne am na kuñ mas a laaj ne ko yow ket seenub yonent lu mu wax ci wàllu médecine mu ne ko xanaa jàngoo kulu washrabu wala tusrifu ndax fërkat lu bëri ci feebar moo koy indi innahu naka wér naka ni yàlla laa bu du yoolal al musrifina way ëppal ña xul waxal yaa rasulallah ne leen istifhaam inkaar yi la man anakan xar moo araamal zinatallaahi taarluk yàlla allati ga nga xamante ne axraja jox na ko li ibaadihi ñeel jaamam ñi ci ay col ba duñ ko sol di def yarami neen di wër kaaba gi wa tayibaati ak ñam yu neex yi min a laa la bam wërsëga qul waxal li hiya col yu baax yooyu ak lekk yu neex yooyu li lazina ñeen la gaañ a nga xamante ne amanoo gëm nañu yàlla fil xayaati ci dund gi addunyaa gu jegeñ jee jeex gi bil istihqaaq donte nag wa in sharakahum fiha gayruhum waaye bu yemal qiyaamee xaalisatan mbirum nekkam ak jagoo la wala boog nga ne xaalisatun jàng nañ ko ba tey moom de jagoo na lée dégg nga ñeel jullit ñi yemal xiyaamati bi su pénc ba ndax ñoom rek ñoo koy jëfandikoo yemal xiyaam waaye ci àdduna ñoo ngi yéeféer yépp a ko bokk ndax lii ata ataatu rububiyya la bële nag ataatu uluhiyya la suñ borom ne kazalika nekk noonu nu fassilu la ñuy teqalee ci leeral al ayaati kéemaan yi al ayaati laaya yi li qawmin ñeel nit ñi nga xamante ni yaalamuuna xam nañu ñoo koy settantalu ndax fa innahum al muntafiuna biha qul waxal ni innama xarama naka araamalul moom yàlla wala boog innama xaraam innama xarama naka araamalul rabbi sama boroom alfawaaxisha lu dul ñaawteef yi maa zahara la feeñ min ca moom wa maa batana ak la nëbbu ca moom la nga xamante ne moo ca biir ak la nga xamante ne moo ci yelu wal isma ak bàkkaar muy ak mooy yàlla wal baxya ak mbew ci kaw nit ñi di leen tooñ bi xëy xaq ci lu dul dëgg wa an tusriku ak bu ngeen bokkaale ak billaahi yàlla maa loo xam ne muy loo xam ne lam yu nazil wàccewul bihi ca bokkaale googe bihi ci moom sultaanan wennuw lay wa an taqulu ak ngeen di waxat alallahi waral yàlla maa loo xamante ne laa taalamuuna xamu leen ci dara min taxrimi ma lam yu xarim loo xam yàlla araamalu ko ngeen ngeen araamal ko su ko defee nag yooya ay santaane yàlla la ak ay tereem te sun borom mi ngi wax ne dund gi du àdduna kese waaye nag dund gi dafa am ab digg dig bi nag bu jeexee yaa ngi jëm ci leneen moo tax mu ne wali kulli ummatin ñeel na bépp xeet ajalun ab digg fa isa jaanjeem dikk na ajaluhum seen digg ba laa yastaaxiruna na duñu tardé saa atan donte benn waxtu dig ba bu jotee moo xam diggu faatu la moo xam diggu mbugal la moo xam lu mu mën ci doon suñ borom nee na dig boobee ma rëdd su jotee laay na saatan doo ko tardé benn waxtu doo ko tardé benn minute wala yastaqdimuuna munta aju ca charte jëlee da ngay diiral day nekk jawaabu charte boo diiral day nekk jawaab boo xam dangay ngay diir ak chartam nga di wa iza lam yaji ajaluhum laa yastaqdimuuna bu fekkee dig bi ñëwul itam la yastaqbiloon duñ ko avancé avancé dig bi shay an suñ borom yaa bani aadama yéen doomu aadama imma yaatiyannakum in la woon achartiya ak ma ñu idgaam ko ci mu nekk imma imma njeem imma yaatiyannakum njeem dikkalat na leen rusulun ay ndaw minkum tukkee ci seen xeet yaqusuna di nettalit leen jàngatal aleykum ci yéen aayaat yi samay laaya man yàlla samay santaane ak samay tere fa man képp koo xamante ne ittaqaa wattandiku nag bokkaale yàlla wa aslaha mu mu yëwanal ak jëfam falaa xafun déetoog ragal aleyhim ci ñoom wala hum déet ñoom yaxzan ñuy jàq ci àllaaxira wallazina gaa ña nga xamante ne kazzabu wedd nañu waaye bi ayatina sama kéemaan ya wastakbaru ñu sàkkoo réelu lànk bañ a gëm an ha walif ko nanguñu ko gëm ulaayka ñooñee ashaabu néer ñooy waa safara te hum ñoom xaalidun woy sax lañu ñu lañu la ñu ca safara sa fa man déet kenn ana kan xanaa kay déet kenn kay azamu di dàq man a tooñ mi man ci ka nga xamante ne iftara ma ngay fort iftara ma ngay fent ala kaziban aw nar alallahi war ko yàlla naan yàlla am na doom aw kazzaba wala mu weddi bi ayaatihi laayaam ji di alquran ji sun borom nee na ulaayika ñooñee yenaaluhum dana dana dana dana jot leen de nasibuhum seenub cër minal kitaabi bu tukkee ci mimma la lahum fi lawxil mahfuzi min arrizqi wal ajali wa gayri zalika loolu mufassir bi wax minal kitaabi ci lawxul mahfuz ci seen wàllu wërsëg waaye nag dund googu day jeex hatta isa jaatum ba dikkalat leen rusul naa sunu ndaw mi malaaka yi ànd ak malakul mawti yatawafawnahum ñu matal seen dund faat leen rey leen qaalu avant ñu leen di rey ña ngay wax ak ñoom tabkiitan ay na ma kuntum ana lan la nga xamante ni nekkoon ngeen tadduuna doon ko jaamu li ngeen doon jaamu min dunillahi bàyyi fi yàlla anamu anamu la ngeen jàppoon ne mooy tax ngeen texe leen di ràmm anamu anamu qaalu ñu tontu leen ne leen dallu faddu nañu an naa wëlëf ñu gisuñu leen de su ko defee nag suñu borom nee na keroog wa shahidu daañu seedeel ala anfusihim waral seen bopp shahida lahu shahida alayhi bokku ci bu shahida lahu mooy seedeel naa ko ngir mu yey waaye shahida alayhi mooy seede naa ko pour yey ko kon wa shahidu daañu seedeel ala anfusim yeyal seen bopp ca jamonoy faatu ne annahum naka ñoom kaanoo nekkoon nañu kaafirin di way weddi ñoo bopp de suñ borom nee na qaala ndax wa man maata faqad qaamat qiyaamatuhu qaala daal wax sun borom ne leen yamal qiyaam udxulu tàbbi leen fii umamin ci mbooloom xeet wa nga xamante ne qad xalat dëgg wi na min qablikum jiitu woon leen minal jinni tukkee ci xeetu jinne wala insi ak xeetu doomu aadama fan fi naari ci safara tàbbi leen safara ànd xeet yooyee weddi woon sun borom nee na ñii dugg safara nag ah ndax lu waaye nekk rek am nga ca kilifa am nga ca njaboot moo tax mu ne kullama daxalat fu mu fopp foo xamante ni tàbbi na ummatun aw xeet safara su duggee safara rek laanat daal di rëbbu uxtahaa xeet wa ko jiitu ngir ne moom ndax moom a sànq sun borom nee na ñoom ñëpp ñuy dugg di rëbbante di dugg di rëbbante xattay zadaaraku ba nga xamante ne dabante nañu ñoom ñëpp fii haa ca safara jamian mboole seen su ko defee nag coole na kur coole mooy lan sun borom ne xaalat daal di wax uxreehum mooy surga sedi mooy ñu mujjee dugg ndax sun borom buy duma kilifa yee lay njëkk duma ba pare ah uxreehum mooy surga ñu mujjee ñëw li uuleehum ñeel kilifa ya ne hey rabbanaa yow sun borom élie ñu wax ak ñoom direct yàlla la ñuy waxal rabbanaa yow sun borom haula yi ñii addallu naa ñoo ñu sànkoon comme ñoo taxoon ñu sànk ba dugg safara yow yàlla fa aatiim yàlla nga dikk ak dikkalat leen jox leen azaban mbugal di fan bu fulu bu ëpp bi ñu jox mina naara ca safara xaala daal wax subhaanahu wa na leen li kullin ñeel na képp kenn yéen surga yi ak kilifa yi yéen way topp yi ak ña ngeen doon topp di fun ab ful ci mbugal nga ni ñoom kilifa yi dañuy am ñaari mbugal ndax nekk ga ñu nekk ci safaan waaye itam dañuy am mbugalu googee waaye xiirtal gañ ca xiirtal ña leen topp dañu am mbugalu ñooñu itam bu tolloog loole ñu leen sant ndax yaa ngi jàng ci xadis ba man sanna sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyaama nekk noonu man sunna sunnatan sayyi'a fa alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yawmi bu fekkee ni da nga jël lu bon rek xiirtal ko nit ñi ñu koy def yow daa jël sa bàkkaar waaye itam daa am bàkkaaru ñoom jëf duñ ca jëf naka noonu bu nekkoon yiw na ngay amee tuyaaba ji ak tuyaaba yi képp ku ko jëf kazalika naka noonu su ko defee ñoom seen bugal xam nañu ko waaye ñi topp yi nag ñu leen parce que ñoom itam kilifa yi bu ñu wéetoon ci mbir mi kon ñi leen topp du duñu bëri waaye comme yéen a leen wuyu ji woon ba nit ña fee coow la nekk fa la mbir ma nekk ba tax ñu ñëw yéen a campagne ñeneen ñi yéen kon fa li ko leen di afun waaw su borom ne wala ko leen di afun ndax yéen leen a wéttali ba nit ñi ñeme kon yéen it lu ñu am da ngeen ko am walakin wante laa taalamuuna xamu leen loolu am na laa yaalamuuna bu ci doon wér na su ko defee nag suñu borom ni xamu leen li ñeel bépp kuréel waqaala daal di wax kilifa yaa ngay wax de ulaahum dégg nga kilifa ya li oxraahum mooy ñu njëkk ña ñeel way mujj ñu mujjee ñëw di surga ya fa maa kaana di nekk lekkum ñeel leen alay naa ci sunu kaw min fadlin génnuk ngëneel lenn loo xamante ne war ngeen ko gañe ci ñun amul fa zuuqu mos leen sunu borom ne leen fa zuuqu mos leen lakk leen al azaba mbugal li bi maa ci sababu la nga xamante ne kuntum nekkoon ngeen taksi bu nahu doon ko fàggu mu xasaf aid ba dafa bëri والحذف عندهم كسر منجلي في أعيد المتصل إن اتصل به في لنا وصل كما نرجو يهب إن الذين nag gaa ñi nga xamante ne kazzaba weddi nañu bi ayatina sunu kéemaan yi wastakbaru ñu sàkkoo réylu an haawulif gëm ko sun borom nee na ñooñu duñ dugg aljana laa tufattahu deful ubbil leen la deful ubbil lahum ñeel leen abwaabu samaa yi buntu asamaan yi bu seen jamonoy faatu seen ruux yi bu demee ànd ak xet gu naqar yi dañ leen di dàq ñu yóbbu ko ci jiil kon ñan lañu ubbil buntu asamaan yi mooy ñi gëmoon yàlla doon topp yàlla seen ruux yi de ànd ak xet bu neex buntu asamaan bu mu àgg ñu tijju ko ba aljana moo tax mu ne laa tufattahu deful ubbil lahum ñe leen abwaabu samaa yi ah xataa wala yadxuluna duñu tàbbi itam aljannata aljana xataa yalija ba tàbbi aljamalu aljamal fii summi fii sammi fii simmil xiyaat yi ci bën bënu puso arab dafay wax lu munta nekk lu jomb da koy aj lu jomb bu dee jamal bi gileem lay firi ñépp xam nañu bën puso ni mu xatee est que gileem xaj na ci su ah kon dafay wax ne ñoom moom duñ dugg al duñ aljana mukk waaye itam aljamal day firi buumu wëgg buum buum buum bi ñu bi ñuy jukkee bi ñu ah goj day fiir aljamal waaye aljamal itam xam nañu mënut a dugg ci bën bënu puso hmm. kon loolu dafa aj mbir ma ci lu jomb parce que seen dugg aljana dafa jomb wa kazalika naka noonu pay noonu ñu naka googe rek pay najzi la ñu fay al mujrimina way jombale seen bopp gëm yàlla lahum ñeel leen min jahannama ci aljan ci jahannama mihaadun laltaay fépp fu ñu tëdd rek safara lay doon wa min fawqihim ñu am itam wa xawaashin ak ay muuraay min fawqihim yu leen di eh, ci eh, eh, sàng ci seen kaw la leen di sàng it mbalaa ni safara lay doon yàlla ci al musal suñ borom nee na wa kazalika nekk nu najzi la ñuy fay azzalimina way tooñ na mooy ñi nga xamante ni dañoo tooñ seen bopp waaye itam tooñ yàlla ci bokkaale ndax inna shirka la zulmun azim walazina gaa ñi nga xamante ne amanu gëm nañu yàlla wa amilu ñuy jëf asalihaati jëf yu yiw yu fartaak sunna mubtadaa la ah laa nukallifu nafsan illa wus'aha itiraat la baynahu wa bayna xabarihi laa nu kalifu de duñ togg ñun yàlla nafsan benn bakkan illaa wusaha nderelam la mu attan ulaayka ñooñee muy xabar ja ashaabul jannati ñooy waa aljana hum ñoom xaaliduna way biyal lañu ci aljana ja suñ borom nee na nag bu ñu dugg aljana dina am lu ma dindi lii tax nit di def safaan ak luy nux nuxi ci xol baag am na koo xamante ne dana dund ak soxnaam fa tabaarakallaahu comme moo ko tànnal boppam mu dem ba ci biir gis ca lu ko naqaree naqaree naq lam doon seenu dara amu ca fa tabaarakallaahu muy dem di dem ak kookee dina xalaat ni buñ ko nee sa soxna ngay takkaat aljana sa soxna si su texee mooy nekk aljana moom dina wax ni moom maa aljana dina neex waaye sun borom nee na léegi-léegi nga gis ñu àndandoo daanaka xiiroo ŋaayoo waaw moo tax bi bi mu wàccee